gàmmu ngaa xam te ku xam tam xel yi jëm ci Baye Mamour Jaxate waaye ku ne ngaa xam tam xel yi jëm ci rasulullahi muy Seydina Limaamu xayru xalxi ba macha allah ñu ngi taxaw ak sunu Baye Seydi Modou Laye macha allah Laye Modou Maxtaar ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la di la ndokkeel bu baax am mbégte ak kontaante nag di séq yow waxtaan fii ci barabu sell bu tedd bi nga xam ne barabu ijaaba la macha allah ñu ngi lay wax Baye Maodo salaamaaleykum Laye Maxtaar. waaleykum salaam Euh, ñoo ngi leen di nuyu leen siyaare di ñaan yàlla mi nga xam ne moo am jàmm yàlla nañu boole defal jàmm ñu taxaw ci place boo xam ne nag eh, li ñu ci mën a wax bari na waaye comme jaar nañu ci kër ga sëriñ Omar wax ci lu baree baree baree bari ci jaar-jaar yi sëriñ Maamu li ma ciy teg rek mooy ñu ngi ci xabru bi bi nga xam ne nag foofu lañ ko denc xabru bi nag eh, commencé woon nañ ko fi ci ay jamono defe naa selu ba ñëwoon na fi jël ko tasaare ko ci jullit ñi eh, bari na ci ñoo xam ne ñii def nañu seen doole ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di ñaan yàlla mi nga xam ni moo am jàmm yàlla na leen dolli jàmm yàlla na yokk seen am am seen man-man ca barkeel ko waaye ñuy dellu siwaat di am lu ñu ciy waxaat ci ñaan gi nga xam ni ñaanuk sëriñ Mamour la muy le vin bii ñu jublu bu soobee yàlla di samedi bii ñëw Eh, ñoo ngi ci woo ñëpp nag ci palaasu ñaan bi ñoo ngi fi woo ñëpp ñaan ñëpp yàlla may leen jàmm ñu teewe bis booba te ku yàlla dimbali itam boo ko mënee fekk si rek nga fekke si ko eh, di ñaan yàlla tam buñ ko fekkee tal palaas bi mu ngi nii des won nañu leen ko liggéey bi nag sori woon nañ ci lool ñëpp daanaka ñu bari def nañu ci seen doole waaye kuy def lu baax ca du doy ca fa ñu koy euh, euh, defee pareegul a ah, ñuy sàkkuwaat rekk ay ndimal ak ay ñaan lu ci waay man nga tàbbalaat ko ci ndax ki ñu koy defal jar na ko Eh, kii bu weex bi ngeen di gis Serigne abla yàlla na yàlla dolli leeram moo ko fi defam ba mu ko fi def ak léegi yàgg na waaye benn bis bàyyi njiin doom ji am ñu fi yabal ñu natt ko ñu defaraat plan plan boobu bàyyi njiin envoyé ma ko ma jox ko alaaj Seynaa Jaxate ki nga xam ne mooy suñu kilifa mu dem waxtaan ceeg Seynaa laay ak bàyyi njiin ñoom bañu ñu ni mën nañu koo commencé ci la ñu sukkandiku par commencé ko ñëw ba fii nag ba léegi taxawaguñu lu ñu am ñu ngi koy indi ci xabru bi pour nu xabru bi pare ndax boroom xabru bi moo waxan Serigne Ablaye ni ko dinaa la dénk ñaar ab taw bu ma laal bu maw nànjaay loolu nag dénkaane la loo xam ni lii moom borom bis bi di sëriñ Mamour moo ko fi bàyyi place am nag ñu ngi ci pareegul lu waay man wala nga man ceer barkeelu na nga fexe ba alors barkeelu ci ndax kat kilifa la goo xam ne alors la ca la ca sëriñ Ablaay waxaan rek ca ñaanam gu jëkk noonu na daal moom mooy kilifa gi nga war aw fas diko dawal diko dawal diko dawal ba fas wa daanu mënatu la dem nga sol sa dàlli weñ di di doxe daal di doxe daal ba daal jeex ngir fekke ci bisam loolu sëñ Ablaye moo ko waxan ca xam na ci dara ndax jar na ko daaw fi jóg kon eh, ñu ñuy ñaan mbooloo mi yëpp yàlla sàmm leen ba ñu ñëw ci bis bi waaye bis boobet ñu ngi koy lancé waat ci liggéeyu xabru bi lu waay man mu barkeeloo ci barkeelu nag dañ ko tuddee ndax lu baax ku koy def defe naa ni lu baax moom du doy ci Serigne Mamour waxan na ko noonu <coughs> na lu baax du doy fa ñu jëm man ko ah baay nit ki bu demee àjjana nag mu ni du tax mu doyal lu baax ndax euh, ñi fi jóge ñëpp am na ci ñoo xam ne ñu ñu nga àjjana te teewul ñu di leen ñaanal seeni xéewal di gën a yokk di gën a yokk ah kon fii mooy palace bi nga xam ni palaasum ñaanukaay la te nag borom place bii sëriñ bi wax na ko léegi moo ñaanal Seydina Limaamu ni ko yow man day matal naa Isaa mu ndaw matalugul te mbooloo ma bari woon na te saaba ya bari woon na waaye moom dong la ci simbi ni ko ñaanal ma mu ñaanal ko ba mu ko ñaanalee at ya mu soxla woon yàlla defal ko ko mu nu ko budda kay laay ba mu ñaanee dafa ñaan nag ñaan bay bëgg a àggal Seydina Limaamu Tisooli ni ko budda kay laay ñaan gi nangu na mu ni ko Maamur yow xamoo ni buntum ñaan nga xanaa loo ñaan yàlla nangu moo tax mu tànn ko ca mbooloo ma ñaan loo ko la mu ko ñaanal mu nangu ca ca ca mbooloo ma mun ko bu nekkee laa ñaan gi nangu na ñu mu sëy naa limaam mu ëf ñoom it ñu door ëf kon mooy borom place bii mooy boroom xabru bii la mu waxan nag ni bu ma tawte bu ma laaj ne bu aw naaj laal Serigne Ablaye ba fi ba mu fi jóge ca suur ba avant dëj ba di raaf Serigne Ablaye xadd na li fi nekkan ndax am na miir bu ndaw bu fi jëkkee na nekk boo xam ne bii miir boobu sëñ Mamour ko fi commencé woon def ko ba mu tolloo fii bi mu tolloo fii nag la sëñ Mamour jóge bi mu fi jóge keroog ba ñuy jàllale sëriñ Mamour fii xaju ci bunt bi dañ koo yëkkati ñëpp di ko seet man mii ci li duggan ci biir la dégg nga kon góor googu mooy ki ñu fi dajale ca góor googu mooy ki nga xam ne bu soobee yàlla samedi bii ñëw le 20 fas yéene nañoo fanaan ci guddeem waaye nag jaam yàlla yi guddi googu ñu ngi leen koy fàttali ngeen fexe ba teew ca ngeen fexe ba teew ca ca kuy teew itam boo mënee andil sa barkeelu ci liggéeyub xabru bi nga def ko ndax kat liggéeyub xabru bi lu ñu ñor la ndax euh, léggéey boo xam ne bi boo koy xool da naan deux cent millions yi day topp kon du liggéey bu ndaw te li ñu ci dépensé bari na te gis ngeen fi mu toll kon eh, ba léegi ñoo ngi tàllal jaam yàlla yi loxo lu ci waay man nga andi ko ñu def ko ci ndax kat ku ko def moom la la sëriñ Mamour dégul digal ku ko deful itam loolu la fi sëñ Mamour ba ñaar dong la fi bay bu ma tawte bu ma laal la ca des lépp nag ci ci suñu kàrtan la ci suñuy waxi bopp ci suñu defi bopp waaye moom ñaar ñii la fi bàyyi dégg nga ci ndigalul suñu xalifa di Alaaji Seydina Jaxate toog nañu fii ñëw nañu fi mu ne ma euh, yow yaag imaam Saxeer mais bu ngeen jiitoo taxaw ñépp topp ci yéen baax na kii moo moo fi nekk féete fii moo entrepreneur bi moom la ñu jiital muy la liggéey bi bu dee affaire financement bi ak taxaw liggéey bi man la man ci saxeer mi dañuy nekk fële am ay jaam yàlla yoo xam ne dañuy envoyé xaalis bu ñu ko envoyé ñu ñëw fii indi ko ànd ci ànd ci ak entrepreneur bi ñu xool fi mu toll ak lañ ca war def ñu def ko ca kon boog ñooñaa tam gërëm nañu leen sant nañu leen ñaanal nañ leen imam saxaar jërëjëf yooyu tam ci taxawaay bi ak doom yii ndax day am loo xam ni kenn mënu ko waaye mbooloo la nag ñii dañoo féete fii nun nu féete fële bu ñu fortaatee dara loo xam ci xabru bi la jëm si ma ànd ak ñoom ñu andi ko bu ñëwee nu taxawu loola ñu liggéey ko ba mu jeex ñu door delluwaat loolu laa amante lu ma ciy waxaat Eh, di soññ gaa yi rek ci ñaan gi ñaan gi moom lu lu ñu itteel la ndax dafa itteeleen borom dem na ba naan bu ma fi jógee baa du ngeen ma fàtte ci ñaan ñu ko abaay ah, duñ la fàtte ci ñaan mu ni bu leen ma fàtte ci ñaan de bu ma jógee sama ginnaaw bu leen ma fàtte ci ñaan dégg moo tax alhamdulilah ba mu fi jógee Serigne Ablaye taxawal guddi goo xam ne gii dañu koy ñaanal kii guddeem gi bokkul ak jàng yi ñuy def guddi ñaan la dañu ko dugal bàyyi jiin da ko dugal ci programme mu jàng yi ngir bëgg nit ñi gën a gën a gën a gën a am jot pour yaatal pour ñëw waaye sëñ Ablaye ay jamonoom suur bu mu tombee rek lañ koy def waaye bàyyi jiin ba mu bëggee gën a yaatal ci la ni na ko dugal ci programme mu euh, fédération pour mu gën a yaatu pour nga xam nit ñi dañuy am temps pour mën a ñëw loolu moo mo moo waral mu ànd ak euh, euh, fédération bi mais ak ñaan la a ñaan la ak ñaan la te lu fi waay ñaan it incha allah yàlla dina ko ko may